ñu waroon ko jàppale rek di si def lépp sanwaa ji def ci lépp ba démb leen fi mujjee ñu xëy tey ñu tàggee ñu ko di ko ñaanal borom Tuubaa teeru ko fiir aljanay si nit ku baax la waaw. waa ji wax nañ ni diggante bi feebar bi bi mu ko yëgee ba tey noppalul yenduwul fanaanul lépp mu ngi koy def ba ci puus-puus bi nga xamante ni mujjee na ko jëndal Abibulaay lépp yëg nañ ko. waaw loolu moom dëgg la ndax lépp lum mu si doon def rek maa ngi moom ñoo si doon ànd suba ngoon gu dégg bëccëg. ba tey man dama teel a yeew pour jéem a woo Pape Sarr xool ba xam ndax ñu ngi koy yóbbu hôpital parce que 11 heures la waroon dem diggante bi may jënd crédit pour woo Pape Sarr heure boobu la ma woo ne ma Habibou Laye noppaliku na waaw. waaye di ko ñaanal rek encore suñu borom xare ko aljanna bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw jërëjëf. tey maa ngi lay siyaar. Magal baa Djili. nakay sant gërëm yàlla bu baax. si gindigaale ci li ñu bokk. waa si gisa waal si gisa waal lañ. làmb ñàkk xale boo xamante ne amoon nañ ci moom avenir ñu gis la fi ci pikin euh, ban relation nga amoon ak moom. waaw xanaa sant yàlla rek di wax baatu auzu billaahi mina seytaani rajiim di wax inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun Abibullah yàlla na ko sunu borom yërëm te jéggal ko xaaral ko àddina kawe ci barke seydinaa Mohamed wax dëgg yàlla mu nekkoon xale bu yaru wax dëgg yàlla nekkoon xale bu baax nekk jantal booy billaay wallaay séq ñëpp jàmm waaw relation boobu lañ am su ma gis jox ma sama wàcc waaye fu ma gis xam nga jox ma cër ñuy déggante xam nga donte bokkuñu écrit bokkuñu fi ñu dëkk sax dañ doon déggante nice li si des moom mooy nañ ko ñaanal yàlla rek sunu borom xaaral ko àjjana yi ci barke Seydina Mohamed waaw sa taxawaay fii moom bettul ñu bari ndax mbër ñu bari say xarit lañ rawatina xale yi nga xamante ne làmb dañoo amoon ci moom yaakaar waaye ci tëdd bi nee nañ li mu feebaroon bari na feebar bi yàgg na lool tëddaay bi metti na mais dafa mel ni daa mujjee noppalu wuy ji suñu borom. waaw feebar bi tëddaay bi yàgg na wax dëgg yàlla mais suñu borom moom euh, mooy xool jàmm bu ko neex rek mu teg ko li mu koy teg. ndax nit moom xam nga lu ma nit su doon defal boppam kenn du ko ëppale dara mais xëy na loolu la yàlla nam mu ci moom ba tey jii mu noppalu ñu mën lu xam nga ñaanal ko suñu borom rek suñu borom xaare ko àjjana yi kawee ci barke Seydina Ahmed ma dëgg nga soxla nañ ko ba ci kanam nag mais suñu borom moom kenn du xëccoog moom lu mu def rek noonu la comme nii la nam ci moom nag dañ koy ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana yi rek ci barke Seydina Ahmed waaw. maa ngi lay siyaar. maa ngi lay delloo siyaar bu baax. ma lay jaale ci li nga xamante ne moom lañu bokk muy Abibulaay mi nga xamante ne daa bokk ci làmb jóge fi àdduna ñu ñëw fekk la fi euh, ban relation nga amanoom waaw ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale waa Pikine di ko jaale doomu nday Ama Balde di ko jaale ñëpp daal wax dëgg yàlla di wax ne relation bi ma am moom mooy bi mu am ak ñëpp rek parce que ku xool lii xam ne nitu jàmm la woon ndax ñi fi nekk yëpp duñu ay mbëru Pikine fu nekk nit jóge na fa ñëw xam nga di ko masaw waa Pikine di wax ne métti na mais nag suñu borom bu soxlaa jaam day ñàkk di ko ñaanal yàlla na rëccu li mu doon ñëwee adduna yàlla na ko malaaka yër ndawe teewu baak Seydina Mohamed waaw di wax ne am nañ dëj am nañ tiis suñu kaw nag mais nag sant nañ yàlla bu baax a baax daal. ci biir waxam dañoo dégg avant muy dëddu mu ne sama ñu ne ko ba xam am na mbër yooyu dégganteel mu cité la yow ak maama Lamine bu Langsar mu ne mobile moom dañuy déggante lu bëree bëri. non man sama xarit la. man sama xarit la man ak moom everyday dañuy déggante dañuy waxtaan dañuy jokkoo ci lu bëri feebaram bi lépp tout dama ko doon woo di ko teg ci ak gaynde nañ def nii ndax nga mën a faju nañ def nii nañ def nii nañ def naa moom it fu mu tollu di ma wax xam nga moo tax bi ma xëyee yëg ko xam nga vidéo bi fu nekk nit ñi di ko jël di ma ko envoyé doy na waar trop mais nag sant yàlla daal ah, amoon nañu yéene mu wér mais nag feebar bu dul wérit loolu moom ñëpp xam nañ muy demee waaw di ko ñaanal baax. Mhm. lan ngeen mujjee waxante yéen ñaar ci ay kàddu. waaw xanaa mu woo ma di ma remercier di ma ñaanal affaire yi demee noonu quoi naan ma instant moom alhamdulilah damaa bëgg nga dalal sa xel maa ngi tane bu baax a baax a baax waaw damaa bëgg nga dalal sa xel ba ma naan ko waaw kon maa ngi ñëw Pikine fan yi fees la mais man dama xaw a feebar man tamit quoi mu naan ma waa kon toogal ba tane rek waaw loolu lañ mujjee déggante. daanaka loolu dala ko doon defalee rek waaye xeetu tàggatoo la woon seen diggante yéen ñaar. waaw mun naa ne xeetu tàggatoo la woon mooy li ñu mujjee déggante man ak moom daal. jërëjëf ñu lay jaajëfal. jaajëf di kontaanee bu baax jaajëf. Cheikh Ahmadou Fadel maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax. nga nekk suma confrère nekk ci Dakar Buzz euh, ma am loo xamante ne gis naa ko sa diggante ak Abibou bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoo ko mujjee jël si waxtaan ma yan témoignage nga ñu mën a defal ci Abibou waa Jili maa ngi lay ziar euh, di la ñaanal jàmm di wax ni avant dara xew liggéey bi rafet na macha allah ngay sunu frère dafa yàlla di liggéey liggéey bu am solo Abibou Laye nag balaa dara xewaat dañuy sant yàlla. julli ci bi sant Serigne Touba sunu yaakaar di ko ñaanal jéggal euh, bokk naa ci ñu ko mujjee jël bi ma ñëwee fekk ko fii ci biir kër gi euh, waxtaan nanu après bi ñu tourné man ak moom ba pare waxtaan nañ loo xam tam waxtaanu nit ak frère la mais mu nekkoon nit koo xam ne nit ku am courage la bi ñu paree daf ma ne faadal nit ñi li waroon def lépp def nañ ko yàlla moo ci des xam nga kon kooku demam gi xëj na ñun la bett mais moom bettu ko euh, mais nañ ci sant yàlla rek. te xam ne yàlla du la bind ci fukki fan day la ci juróomi fan ku ne bis ba nga war a dem bu jotee danga dem mais daal demee na ndaw yaakaaru la euh, làmb la di benn bu góor ci ndeyam ak baayam euh, ma ñëw ci kër gi gis way juróom bu jigéen ni mu meloon ci moom am cofeel bu amoon seen diggante goo xam ne man bi may déggee génn àdduna rek li ma njëkk xalaat mooy yaayam mais yàlla mooy doxale noonu te kenn du fi jóg mais daal demee na ndaw mais daal demee na ci demin bu métti tam parce que dafa nekkoon koo xam ne day soutien xam nga di benn bu góor rek yàlla waroon ko fee bàyyi mais suñu borom lii mooy li ko neex duñu xëccoog moom ay taalibe Sëñ ay jullit lan lu yàlla def dañuy neex ñu ngi ñaan yàlla defal ko jéggal. mais bi ngeen mujjee bi ngay ñëw di ko jël da nga ko jël ngir lan ñu waxtaan ci feebar wala da nga jëloon pour wut ndimbal ci jàngoro booba dama ñëwoon pour wut ndimbal ci moom parce que dafa am émission bu may def bu tudd Dakar Buzz social ah, bu nu ngay am ay jafe-jafe dañuy affiché sa genre numéro bon volonté yi dem ci. bi ma ko jëlee ba ñibbi daf ma woowaat ci guddi gi dama faadal bi vidéo bi duggee rek dembaka Ka Demba dafa ñëw jox ko télé jox ko deux cent cinquante mille moom ci guddi gi Abdoulaye moom waat ne ma Demba Ka ñëw na fi jox ma télévision parce que daf ne ma ci biir image yi dama amoon problème analyse xaalis ba jël sama télé jël ko jaay bi ma gisee image bi bi Demba Ka gisee mu def loolu xaar loolu ci image bi Demba Ka ci guddi gi la fi ñëw jox ko écran plat jox ko deux cent cinquante mille mais di gërëm tam kenn koo xam ne tam damay wax rek te yàlla tax ndax man yàlla laa gëm ak yonent bi ak Sëñ Tuubaa mais duma waxal nit lu newal ci moom euh, Keba Kanté def ci jàpp ci lu ma yëg man parce que waxtaan nanu ba puus puus bi mu mujjee jënd bërki démb mi ngi ciy waxtaan ak man ngir moom sànq maa ngi ciy waxtaan ak Pape Sarr mu jox Pape Sarr xaalis pour ñu waroon koo yóbbu tey hôpital far yàlla def li muy def di gërëm ñi si jàpp ñëpp mais daal ñëwoon nan pour dimbali en tant que frère jàppale ko en tant que Pikinois ñëw nañ gi jàppale ko ngeen en tant que nitu làmb looloo taxoon ñu ñëw suñu jël suñu caméra seet si woon ko waxtaan ak moom te bi ñu ko defee gis nañ ni mu néew mu bari gars yi participé woon nañ ci ndimbal ko. Mhm. ñu jaajëfal bu baax di la ko jaale ndax xam naa ni euh, doomu Pikine nga te lépp loo xamante ni tiis la bu dal Pikine rek euh, dal na la muy booy loo mi fi jóge barki Demba ak Abibulaay miit. waa muy lu metti booy loo gis nga li ma naan wér taxut a gudd fan. wéré di taxut a gàtt fan booy loo entraîné ba pare yàlla def la muy def mais daal li may message bi may lancé mooy euh, ku yàlla jox fukk de la séddaleloo koo tane dimbali ko ndax bise ngi ñëw nit dana yor lu bari bëgg a dimbali nit te doom fu mu ko dimbalee kon bi ngay man koo tane dimbali ko ndax mën ak mën dafa jege trop te buy song du la yëg koo tane na nga ko dimbali dégg nga jëla gërëm nag di ñaan jàmm ci yow liggéey bi mi ngi nice wasaare moom daa wuy turam c'est partout dans le monde. jërëjëf Djily. jërëjëf Cheikh Mouhamadou. jërëjëf. daal maa lay nuyu. maa lay nuyu Ba Djily. nga nekk promoteur ma ñëw fekk la ci tiis bi nga xamante ne dafa dal waa Pikine euh, muy Abibulaay bi fi jógee àdduna euh, sa diggante ak moom lan la waa nit ku baax sama rak Sile Balla Junior bi ma am 15 ans la ñu moom sama rak la sama xarit la lépp lu a Baldé daan yónnee sama diggante moom ci man la ci moom la daan jaar. ñoom relation yoo xam ne mooy loolu gars yi di ci sonn ay ñoom salaam ñoom góorandooy lépp lu am ci Abdou Abibulaay rek ñoom dañ ma doon woo di ma ko wax yow fekk nga ma man góorandooy ñu toog te ñoom bu ñuy jógee kër Abibulaay ay 5 de matin la ñu fay jóg dem di tëddi dañ jàpp ci coono yi mais man benn message bi may lancé rek mooy àdduna amul solo te ñi yàlla suñu borom dénk ñu di am teranga nañ bàyyi xaar ba nit dee ñuy rey kaat kaat rek soli jees neer di ñëw kenn ku ne na foo xam ne boo fa tollee war nga a dimbali nit ndax dimbali ma mënta passé yëpp di da nga gis ñuy gis yi gars yi di may ay millions yoo xam ne boo ko mayee amoo ci yàlla amoo ci yonent bi ndax yaa ngi koy maye ngir gis leen ma li war man daal li may wax askan wi mooy képp ku war a dimbalee na nga xool ñi nga war a dimbali nga dimbali leen ndax nag euh, lamb acteur lamb lamb am na ñu nekk ñu wax ne dañoo am teranga mais war nañoo jàppale ndaw yi tey xoolal sama rak tey démb mi ngi dese tey Abibulaay ñi nga xamee ne dañoo feebar daal te yàlla dénk leen maame ga tey jii ñu am ñi am teranga nañu jàppale ñi seen loxo jot seen ginnaaw waaw lu bari dafay dal ci mbaru làmb yi ñu wala ñi jiite làmb buñ feebaree di laaj ñaan ndimbal yu mel noonu te après ndimbal boobu ñu doon sàkku day mel ni ba tey dina am ñu leen di dimbali waaye di ñuñ ko yaakaaree ñoo leen waroon jàppale ñoo leen di dimbali. làmb ñi ci nekk maam yi noo bëggantewut làmb ñi ci nekk ñoo bëggantewut te gis nga wax day ànd ak jëf ndax sëñ Abdoulaye Mbacke nee na doomu aadama jëfam su méngoo ak waxam rek maam yi kooku jar naa jàpp. te léegi da nga gis làmb ñi ci nekk tey ñu war leen a jàppale ñaata mbër fi ne feebar am na benn mbër boo xam ko seeti woon jamono yee si ginnaaw ko war a jàppale kooku la kenn ku fa dem jàppale ko dañuy xaar nit ñu génne ko ñu na fee may na diw téeméeri junni a may na ni 2 millions ngir lan ñu xam ne maam may na fa 2 millions te pourtant mën naa damay dimbali bàyyi jiile wala damay dimbali yi ñi ngi ñëpp xam ko loolu rafetul waaw ah, maa ngi ñaan daal di ñaanal Sénégal suñu borom def fi jàmm di wax ne mbëri seen métier nañ ko gën a fonk maa mi nit ki na boole métier ak lamb bu jafe-jafe ñëwee suñu borom man na laa dimbali boo yorut lépp itam dina am foo xam ne la fay fekk la ci yoon wax moom léegi dimbalituñu kenn ndax léegi kuy dimbali nit di taxaw ci presse bi pour maa dimbali diw wala xam ne maame nga pour yow xam ne ne yaa dimbali loolu rafetlu nu ko na ni dimbali nit ñi ci suuf te dimbali nit te yàlla tax man loolu laa lu may wax daal Pape Thiam maa ngi lay nuyu. ak yéen delloo naa la nuyu bu baax a baax di wax. ma ñëw fekk la fii tey ci daju ki nga xamante ne mooy Habibou seen diggante lan la. waaw dafa doon nit koo xam ni dañoo bokk million làmb. waaw mu jéem si loo xam lu rafet la. bu génnee àdduna yoon la lu ñu jàppoon lépp ñu bàyyi ko ñëw teewal ko gunge gaay yi ñaanal ko yàlla ñu borom yërëm ko te xaar ko àjjana doonoon na daal nit koo xam nit ku baax la. waaw li ñuy wax si moom daal du bëri du dul ñaanal ko yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana firdawsi waaw di wax làmb nii la mbëri ñoo bokk nday ñoo bokk baay ku am bànneex da nga fiy gis mbëri ku am nakar tamit da nga ciy gis mbëri àdduna amul solo loo fi gis day jeex kon dara jorul ñodde xam nga abibulaay daal yàlla ko yàlla yërëm taxaare ko na àjjana firdawsi daal waaw mhm. waaw loolu rek la ñuy mën a wax si moom daal kontaan nañu bu baax a baax jaajëfa